bu fekkente ne talaatay ndeer amoon na ci Sénégal ajjumay presse itam am na ci Sénégal te yéen yéen a ko waral yéen ko taxawal ñu ngi leen di sant la presse sénégalaise ñi nga xam ne nekk nañ ci exception ñu ngi leen di xaar ñu ñëw bokk ci komba bi ndax du combat benn nit du combat ñaari nit du combat euh, juróomi nit combat 18 millions sénégalais lañu fi may tàmbalee sama wax nag mooy ñi tëj Walfadjri bu ma leen jàppoon tey du ma leen yóbbu tribunal du ma leen yóbbu prison mais dama leen di yóbbu sesti bu ko defee ñu def formation ba xam lan mooy presse ak lan mooy njariñam ci réew mi est que loolu jaaduwul depuis 1856 Sénégal mu ngi xam presse ak journal bu ñu daan tuddee le moniteur di Sénégal e dépendance ñu dem ba deux mille vingt quatre ñu ne dañuy couper signalu benn tele muy Walfadjri ñu ne dañuy nangu licence am pour effacer ko ci histoire Sénégal loolu ak suul ker ñoo niroo kenn mënul suul ker kenn mënul baare fajar pour jant bi bañ a fenk euh, Walfadjri nag du ndonoy Sidi Lamine Niass Walfadjri du moomeelu ña fay liggéeyee waaye Walfadjri Walfadjri wu sénégalais yépp la yow mi tëj Walfadjri est-ce que xam nga ne yaa ngi taf bëtu 18 millions sénégalais ne bu leen xool yaa ngi saañ nopp 18 millions sénégalais ne bu leen dégg loolu ci ci réew est-ce que jaadu na loolu mooy moo signifié tëjuk Walfadjri dama yaakaar ne ñoom dañu xamul lan la lan la tëj Walfadjri tëj télévision di undu moo tax ñu def ko waaye léeg lu bon jur lu baax ummi ndax li nga xam ne presse bi def na ko nii tey nga xam ne képp ku ñu laalati rek ñu jóg taxaw loolu bu boobaa dafay nekk ne ñun benn benn la ñu woyoon waaye nekk nañu benn say benn góor dafa dajale juróomi euh, fukki bant mu jox ko seen doom pour ñu damm ko mënuñu ko damm mu mu tasaare bante yi nuyu damm ko par benn benn ñu damm ko ci lu gaaw kon presse bi na xam loolu ne seen doole mu ngi ci seen bennoo seen doole mu ngi ci seen jàppaloo seen doole mu ngi ci bu sa moroom yëgee nga yëg ba ca topp mooy li nga xam ne dal na ci kaw Walfadjri tey muy loo xam ne bu fekkonte ne euh, dañu wuute ak professionalisme walla bu fekkonte ne tey dañu def loo xam ne dëppoowul ak euh, nekkiinu sénégalais bu boobaa ñun ci suñu bopp ñooy njëkk reconnaître li nga xam ne def nañ ko ci erreur waaye loolu mu def cee amul. xam ngeen ne li tax ba ñu tëj Walfadjri euh, Pierre moo nekkoon ci plateau bi bu lu dëppoowul ak professionalisme doon jib foofu moom moo koy njëkk arrêté bu ko arrêté wul sax euh, ña ko doon euh, déglu di ko topp arrêté ko mais loolu tey li ñu doon ni ca. ca Coupe d'Afrique bi bu ñu doon vaaraat tey li si li li Walfadjri ji doon teg ba ñu tëj ko duñ ci gis benn lenn loo xam ne wuute na ak professionalisme kon bu ñu taxawee fii tey euh, nekkul taxawaay boo xam ne dañuy sàkku euh, dañuy jéggalu waaye taxawaay la boo xam ne taxawaayu nit koo xam ne ci biir métier la am tolof tolof boo xam ne dañu ko ko teg te te te yàllul kon li ñuy wax fii tey mooy ne wal fajri ak beneen presse bu mu mënti doon yëfu sénégalais yi la ku ko laal sénégalais yi ngay tooñ am na ay réew Afrique yu bare tey la tax ba pëccëxoo ba bare fa boo demoon Afrique centrale wala Afrique de l'Est la fa nekk ci pëccëxoo ak ci foñante ak ci bodde konte li ko waral mooy dañu ŋalaab gémmiñ yi dañu saañ nopp yéen du ngeen ko fi déggee du ngeen ko fi waxee moo tax tëll tëll rek ngay dégg nañu bàyyi nit ñi ñu wax moo gën ñu bàyyi leen ñu jëf loo xam ne dafay nekk sofaan kon yéen ñëpp nangeen ngeen waxandoo ne nañu libérer la presse libérer Walfadjri libérer Sénégal. ayca libérer moo meelu askan wi la. du moomeelu Sidy wal fajri moo moomeelu askan wi la du moomeelu Cheikh Niass tooñ Walfadjri tëj Walfadjri mooy tëj Sénégal wasalaam